di rafetlu effectivement donc euh, yéen aussi seen taxawaay parce que bés bu màgg bu mel ni tabaski muy bésu donc euh, it bés boo xamante ne benn bés la si lislaam bés bu wane effectivement donc lan mooy sacrifice ak lan mooy pas-pas ak lan mooy dellu si sa borom ngeen ñëw jox ñu seen micro pour que donc ñu wax leneen loo xamante ne du luñ doon wax souvent mooy wàllu politique wàllu àdduna mais loo ñun ñëpp suñu bopp ci yàlla delloo suñu bopp ci solidarité surtout yaakaar naa ne donc amee nañ leen gërëm donc j'en profite pour vraiment baalu ak Sénégal yëpp di leen baal ax aussi di leen ñaanal di ñaanal réew mi di wax ni daal maa ngi souhaiter bonne fête à tout le monde yàlla nañu yàlla defal effectivement tabaski jàmm mais ñu jóge fi aussi dugg effectivement si période boo xamante ne période naataange la ak période jàmm pour réew mi. bés la boo xamante ne képp ku jël kàddu war nga wax réew mi euh, wax bi benn lay doon mooy ñu ñëpp nañu ñaan effectivement dal ak jàmm pour réew mi parce que si jàmm si la lépp xaj si jàmm si la développement nekk si jàmm si la prospérité nekk. si jàmm aussi si la effectivement donc lépp loo xamante ne ku nekk su ñun mooy sa ambition si jàmm rek nga ko mën a conduire bon nag yaakaar naa ne message bi nekk le dénominateur commun tous les sénégalais mooy ñu ngi ñaan effectivement donc réew mi jàmm wàcc fi jàmm sax fi ñuy euh, ñaan aussi surtout acteurs politiques yi ñu dal ñu dal. Euh, ànd effectivement si ay principe mooy que ne am réew euh, lu ko lal mooy effectivement ay principe euh, républicain li lal réew aussi mooy des principes démocratiques li lal réew mooy ay valeurs law li lal réew mooy euh, ñu adossé wu sur ce qu'on appelle éthique boo xamante ne ñu ñëpp buñ si donc wéeru rek yaakaar naa ne suñu réew dana nekk réew boo xamante ne réew mu ràññeeku la réew moo xamante ne réew mu ñëpp ñee la parce que Sénégal dafa mas a nekk réew moo xamante ne dafa war a mas dafa mas a joxe exemple si àdduna bi ak si Afrique. maa ngi leen di donc jaajëfal di leen féliciter vraiment si liggéey bu rafet bi xamante ne 7TV donc mu ngi koy def si réew mi nekk une télévision boo xamante ne télévision de référence la maa ngi leen di féliciter bu baax di leen remercier.